waaw ñu gën a a baax wa samiu al alimu al rahmanu mbokki julit yi mbokki taalibe yi mbokk waa organisation màggal gi ñépp ñoo ngi leen di nuyu di leen baalu àq di leen baal àq di leen sargaal itam ci bis bu màgg bi nga xamante ni organiser ngeen ko ñëpp ànd ci taxaw organiser ko ah te loolu mu nekk ko nga loo nga xam ni rek ku ci nekk daa jëf ngir sa bopp mën man amila saalihan fali nafsihi ku jëf-jëf ji yiw rek xamal ni sa bopp rek nga jëfal kon ginnaaw ba awalan ashukuru lillahi wa salaatu wa salaamu ala man ursila rahmatan lil alamin li njëkk daal mooy sant yàlla yàlla mi nga xam ni moonu mayug wér may nu lu nuy suturloo defal ñu xéewal ba ñu mën a taxaw di fàttaliku ak di sant di màggal màggal gi nga xamante ni Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Mbakke moo ko digle moo ko sos teyit moo xiirtal mboolem umma bi mboolem murit yi wala mboolem ummatul islaam wala mboolem waa Sénégal wala mboolem waa àdduna ñu taxawal ko bi ci berndeel a ah, bi ci sant buur bi tabaaraka wa taala di ci fàttaliku li nga xamante ni moom lañ ko tegan te mu doon wan natt boobu mu nekk mbir moo nga xamante ni da koo yëkkati gën koo jëmale kaw ndax it am nattu du ñëw ci jullit bi lu dul rekk da yëkkati dara jaam te itam wàññi ay ñaawteefam kon euh, Cheikh Ahmadul Bamba Mbakke gàcca ah yàlla degal dogal na moom sëñ bu mag boobu muy Ahmadu bàmba al muassisu tariqatil muridiya mi nga xam ne moo sos tariqa murid bi ñu tudde al maxuuz min rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xam mu ko jëlee ci maamam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moomu yàlla nanu yàlla jariñ ak mbooleem wàlliw yu ci barkeem ak mbooleem wàlliw yi nga xamante ni moom la jamonoon teel bu ñu waxee wàllu yuñ jamonoon teel tudd nañ maam say cheikh Seydil Haaji tudd nañ maam cheikh bu naama Ndiassane tudd nañ itam sëñ Issa Laay kon tudd nañ yëpp wàllu yu Sénégal ak yëpp wàllu yu nga xamante nekk nañ ci àdduna bi te yàlla def bisam bii moo nga xamante ne moom lañ ko jàppan di ko yóbbu ca géej ga di ko bunduxataal te mooy li tubaab yi yaakaaran te moom ma nga naan leen asiru ma al abrari hina asiru wa dhanna al ida ni bi hunaka asiru maanaam jamono ji may dox ñu ma yóbbu maa ngi ànd ak way texe yi maa ngi ànd ak ñu baax ni nit ñu baax ñi al abraar nag paasewul nabiina paasewul ashidiqina paasewul ashuhada ñi nga xamante ni shahid nañ seeni ruux keroog teew nañ ak ñi nga xamante ne ay waliyu lañ ay yenentu lañ ànd ak moom di ko gunge ca mbir mooma bu ko defee mu ngi jaar euh, fépp fum mu mës a jaar moo xam port la boo demee ca Conakry day way ba àgg ca euh, ba mu àggee portu Conakry ak ba mu àggee Libreville yooyu yëpp ma ngay way di waxal ni nit yi euh, yonent yi sallallahu alayhi wa sallam yoola yonent alayhi salaam ak nit ñu baax ni ñi nga ànd nag moom booba kon loolu nekk am nattu ci li nit ñi gis waaye nag moom mu gisee ko ni lii a ah, daraja la yoo xamante ne buur bi tabaraka wa moo ko ci yëkkati ba mu dellu nag mu wax ñuy sant di màggal bis bi te bis bi kon ñi ngi koy màggal ci réew ma muy Sénégal ak waa ñoñam ñëpp ngi koy màggal muy waa tarixatul muridi mbooleem adduna bi bi asriha adduna bi yëpp ñu ngi koy màggal a ah, mu nekkan nag euh, wàll yi woo xamante ni bu ñu dee wax ba suba duñ mën a wax ay jaar-jaaram ak mbaaxam ak tagg goo nga xamante ni daana ko tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, wéetal goo nga xamante ni daana ko wéetal boroomam ndax moom wa day tagg bi sallallahu alayhi wa sallam ak di wéetal boroomam ba àgg ci ni kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walillaahi bihi sakantu maanaam daal moom ni ma la ko mën a waxee alxuraan juy dox la wan ah ci maanaa buñ la nee alxuraan juy dox mooy koo nga xamante ni tënku na ci téere bi yàlla bi li yàlla euh, digle moom lay jëf li yàlla tere moom lay bàyyi te loolu kon moo tax ba mu ni kitaabu rabbi kaana lii wa kuntu lahu walillaahi bihi sakantu dema dem ba ni moom ci boppam moo not kanam ba nga xamante ni moo jiital boppam fu ko yàlla jëmale rek foofa lay jëm kon kooku tey bu ñuy wax mënuñoo wax lépp li nga xamante ni mooy ay jaar-jaaram xanaa rek dañ ci jukki comme loolu rek bu ko defee suñ mbokk yi euh, ñu commencé barkeelu ci comme ñëpp ñoo bokk li ñuy wax màggal gi ndax euh, moom bokk na ci ñi nga xamante ni saabixu bil xayraati la ñi nga xamante ni dañoo jiitu ca yiw ya mook e, walli yi nga xam dañoo jiitu ca yiw ya ca la bokk te ndax nii la buur bi tabaraka wa taala waxee ni fa minhum zalimun li nafsi adduna bi yàlla bindee nit ñi ñetti nit rekk la ñetti kuréel la minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum saabixu bil xayraat te kon nag moom ñoo ngi ko seen ca ña nga xamante ni saabixum bil xayraati bi izni rabbihim ña nga bokk ci ña nga xam ni ñoo jiitu ci yiw yi ci seen ndigalal boroom wala ci seen ndimbalal boroom te zaalimun li nafsi mooy ñi nga xam ne yàlla moo leen digal ñu taxaw lànk jëmuñu ca jéemuñu ca def dara jéemuñoo wéetal buur bi tabaraka wa taala jéemuñoo julli ñoo woor xalaatun dara daal ci mbir moo nga xamante ni day dellu ca yàlla di feesal seeni balance bu àllaaxira seen balance yiw ñoom daal ña nga ca la nga xamante ni yàlla bëgg ko ñooñu mooy zaalimun li nafsi bu ko defee ña ca des kuréel ba ca dey mooy muqtasid muqtasid nag boo ko déggee mooy ñi nga xamante ni sàkku nañoo njub sàkku nañoo njub moo xam ah eh, tey ña nga ci lu baax léegi-léegi rëcc dal leen ñu dem def loo nga xamante ni yàlla eh, santu leen ko bu ko defee ñooñu dañuy dellu tuubaat jëm ci seen boroom kon ñooñu ñoy muqtasid ñi nga xam ni ñi ngi ca diggante ba bu ñu tooñee jéggulu buur bi tabaraka wa taala ndax it nag inna alxasanata yudhibna sayyi'at ah, li ñuy def ci yu baax mooy demal yu bon yi kon ku ci nekk rek ci ñun na fexe fukk fukkam yi yi ko yàllay fay mu ëpp benn bennam yi nga xamante ni mooy ay bàkkaar ña ca des mooy asaabiqu bil xayraat ni ma leen ko waxee mooy ña jiitu ci aw yiw ña jiitu ci aw yiw mooy mooy wàlliyu ya mooy nabi una ya yonent ya wàlliyu ya siddiqiina ñi nga xamante ni way dëgg lañ ñu ànd ak uh, alxuraan di jëfe li yàlla jëf wa saalihiina nit ñu yiw ya wa saalihiina wa xasuna ulaayika rafiqa ak ña ca topp ñëpp kon fa tabarakallah ñu bañ a guddal rek doonte sunu xol kontaan nañ kontaan nañ bu baax a baax te lii mu nekk mbégte ci ñun sénégalais yi nekk fii ak sénégalais yi nekk euh, biir Afrique ña nekk senegal ak waa monde bi yëpp kon yàlla na ne yàlla defal euh, képp ku fi ñëw indaale yéeneem yàlla faj. aajo ji nga xamante ni moom la yéene képp ku fi ñëw indaale feebar yal na yàlla faj feebaram képp ku fi ñëw indaale ragg moo xam ci alal moo xam ci lu mu doon yal na ko yàlla yëkkati ah te yal na yàlla yëkkati leen bu baax a baax a baax baax ba ku ci nekk bu màggal gi dellusee nga xam ne yàlla yëkkati na la ci daraja yi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon wasalaamu aleykum wa rahmatullah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 المتقي والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى